Vainqueur de la Corée du Sud la veille, la délégation sénégalaise est finalement arrivée en Russie, précisément à Kaluga. Cet après-midi, vers les coups de 17h et quelques, les lions du Sénégal sont arrivés à de Kaluga, vêtus de boubous traditionnels bleus, montrant leur appartenance à l'Afrique. Sourire aux lèvres, les lions sont en pleine forme pour débuter la compétition. À 48 heures de l'ouverture la Tout semble être fin prêt. Dans le bus transportant les lions du Sénégal, la devise n'est pas passée inaperçue. Impossible n'est pas sénégalais, ce qui veut dire que tout est possible avec cette équipe du Sénégal. Espérons qu'il puisse dépasser largement la génération de 2002. Kaluga en Russie pour KSTV. gannaaw bañ jeexalee seen match tàggatu bu mujj bi équipe bu Sénégal bi moom moo mujjee gagné équipe bi di Corée du Sud ñaari bal dara. mbir bi nga xamante ne bi waa Corée ñoo ko dugal seeni kër ak bi nga xamante ne moom la Konaté dugal ngir Sénégal délégation bi nag mujj nañu agsi ci jàmm fële ca Russie dëkk ba ñuy wax Kaluga tey ci ngoon bi juróomi waxtu tegee ay simili ci lañ leen seen seen avion bi daal di wàcc ñoom ñëpp ñu sol ay yére olof yu bleu maanaam pour wane seen bokk gi ñu bokk ci Afrique ñu kontaan loolu ndax niñ leen gisee nduru nañu ñoo xamante ne noppi nañ ndax ñi ngi ree di kaf di foo ba moo leen xoolee dangay ngay jàpp ne ñi seen lépp yemb na. nga des ngir coupe du monde ba war a am ci Russie 2018 tàmbale te gis nañu ni équipe nationale bu Sénégal bi dafa mel ni ñoom seen lépp noppi la boo xoolee nag bis bi nga xamante ne moom moo leen di yóbbu ñu ngi ci bind ne impossible n'est pas sénégalais maanaam ci Sénégal amul lenn la nga xamante ne war naa war na leen a tër ci compétition bi di wane ne nag équipe bi noppi nañ te ñu ngi waajal seen bopp. ñu am yaakaar ñu weesu lool fi nga xamante ne moom la génération 2002 yamoon Kaluga ca Russie KSTV